وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار أمسينا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا del si waat nañ ci tafsir bi dars bi passé ñu ngi jàngoon ba ci rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin waaye ci tafsir bi romb nañ ci juróomi aaya yu ñu tafsir te jànguñ ko léegi dañuy fas yéene jàng juróomi aaya yooyu tàmbalee tafsir ci fa ida jaatuhumul xasana ci bopp aaya 130 baada audu billahi min alshaytani alrajim wa qaala almalau min qawmi firawna ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيرون والقلم والدفاتح والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني ربك الحسنى على بني إسرائيل على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الحمد لله رب العالمين comme ni ñu ko waxee woon dars bi ba tey ñu ngi nekk ci jaar-jaaru yonent yàlla Muusa ak banu Israil ngeen xam ni banu Israil xeet bu doy waar lañ kadalika firawna ak i ñoñom Muusa subhaan Muusa borom bi yabal ko mu firawna ci ndigalal borom bi première phase bi mooy gañe na firawna ndax bi firawna indee ay njabaram dëggu borom bi daal ko fay jëlee moo tax dëggu moo am solo ak def dëgg dëgg suy bëre mën nañ koo daan waaye bu yàggee mu daan moo tax borom wax ne wala laqad axadna ala firawna bissinin njabootu firawna borom bi nee na jàppee nañu leen ay nattu siniin buñ ko waxee ci arab mooy ak yoo xam ni dafa ànd ak mbugal asamaan si du taw ngelaw si du neex fitna am jafe-jafe am borom bi nee na wa naqsin ak wàññeeku min athamaraati ci meññent mbayteef yanu bay mënuñu ko jëriñoo gis ngeen suñu réew ren dañoo bay ba am yaakaar taw ñëwaat taw ci baykat yu bëri yàqule fa ajaban kuffaara nabaatuhu waaye nag loolu moo neex borom bi yàlla na yàlla soppi ko li gën borom bi nee na ñu dem ba wa naqsin min as-samara meññeent ya ñu doon bay muy vale ya ceeb ba tooli dër ya légumes ya yooyu borom bi nee na am nañ ko waaye wàññi naa ko borom bi ne lan moo tax ma def ko laallahum yadakkarun ngir ñu fàttaliku nit lu jaar sa kanam da nga war a jàngat lu la weesu nga jàngat ko ngir fa nga jëm nga mën a àgg su la dara dalee dangaa war a toog ne lii pourquoi mu dal ma est dafa am lu ma def wala est-ce que dafa am lu ma bàyyi léeg-léeg nga feebar jaaxle faju faju ba sonn wéru jàngataatal sa bopp waxtaanal ak sa bopp ana nga waroon a def te defoo ko ana lan nga waroon a bàyyi te bàyyi ko bu dee borom soxna mbaa yaa ngi koy matalal ay àqam mbokk yi góor ñu bëri dinañuy am jafe-jafe fekk la ko teg mooy àqu soxna yi ñu yore te soxna yi mënuñ koo kaas ndax ñu bëri ci ñun dañoo jàpp ne say kilifteef la lu la neex nga teg soxna si ndax dañ ko ni muñal dëgg-dëgg muñ na wala na muñ waaye àqam moom danga ko koo war a matalal àqam ci yow mooy lan lekkam naanam dëkkuwaayam solam ak jaamu yàlla juróom yi soo fexee ba kii ci sa loxo am na ca yoo xam ni war na la waaye newut sa loxo muy lekkam ak naanam ak solam war na la waaye nekkul sa loxo borom bi nee na yéegal yettal jaayal jëndal ndax nga indi ko jox ndax kat ku yeew fas jox ko ngooñ nga yeew ko ci kër gi ne ko bul génn bul dem fenn su génnee nga mer su demee fenn nga mer te biiram teeloo ko ko yaa ngi bëggee di jafe-jafe tere ko mu génn tere koo doxi soxla te ay yéreem utaloo ko ko yaa ngi bëgg a te loolu war sa digganteeg moom defoo ko ba pare nag bëgg la ko war ci yow mu matal ko foofu nag la jafe-jafe bi nekk kon boo demee boo liggéeyee amut walla nga wut amoo loo def amoo toogal nga xool soxna si lan laa ko def waxtaanal ak sa xel su la réeree waxtaanal ak moom waxtaanal ak moom da ko si lu xew mbaa amee lu ma la benn àq même bu baaxee ne la déedéet sax naxalanteeg moom ne bu fekkee dafa am lu mën a def rek nit la leeralal ma aman na su fekkee yaa di ko jaay doole yàlla nee na naa ak feebar wala ñàkk wala jafe-jafe laallahum yarjiun ndax boo xalaatee nga dellu ginnaaw say doom mbaa yaa ngi leen di dundal te yaa leen tee ci kër gi ñuy sa doom nga jur leen nga bëgg seen lekk ak seen naan doo ko gérer te yow fu lekk jotee nga lekk fu naan jotee nga naan orof nee na góor bu raxasee tànkam fu ko neex dal waaye jigéen mënta dem bàyyi doomam kon njaboot bu tuuti gii ñii toll ci nàmp ñii toll ci fer ñii di jàng dox ñoo la war a gënal àdduna ak li ci biiram ndax seen dund yow la war wa ala al mawludi lahu wa kiswatuhunna bil maaruf yomb na ci ñun nag koo xam ni bu la sa jabar laajee wareef dana ko dimbale ma waaye mënuma ko nangam nangam yoruma ko nangam nangam déedéet du la dimbale boo bëggoon mu dimbale la doo ko jëlee seen kër waaye yow yaa dem ni papaam léegi noppal naa la ci dundam noppal naa la ci lekkam noppal naa la ci naanam nga joxe imam ba xutba farxab farxab ñetti yoon comme su imam yi moom foog nañu seen moom farxab rek waaw fu ñu takkee sëy ba pare farxab farxab farxab farxab waaw loolu ba mu ko jàngatee ndeke yow farxab ba lañ jublu mooy boo paree demal nga sonni ngir nga yore sa jabar kon doom yi farxab pour nga dimbale leen jabar ji farxab pour nga dimbale leen lekk nag boo ca utee la la war neex naag neexut soxna si amatul droit ndax neex na wala neexut léegi tey neex nag neexut ci loxoom lay des ci loxoom lay des 1000 francs nga am moom nga mën a joxe dëkkuwaay bu ñaaw bii nga am moom nga am la nga am foofu nga mën a def sa jabar waaye yow góor gi bul dof nag yenu nga yenu ba xam ne attanoo néegu 20 000 nga attan waaye waaye génnal Kastoor dem Pikin néegu 15000 nga am ñëwal Caaroy njëgu néegu 10000 nga am demal Mbambiloor ah <laughs> ala inna ardallahi ay waasi'a waay waaye nag non man Kastoor laa juddoo màggee fi vraiment mënuma dem daal di bàyyi gaa yi daal te yow mënoo fay 30000 40000 bu yàggee nga weeru de. da ngay xëy suba teel ñu génne sa bagage ci ëtt bi nga boo demoon ba mbaam bi lor ñëw daaru cubb sax ma àll am foo nekk borom bi subhanahu wa taala dafa ne askinuhunna min xaysu sakantum min wujjikum ci sa mënin min wujjika la nga am na mu sa salaire calculel ndax l'occasion bi ak ajak reer ak ndékki xaj na ci loolu da nga koy xool su fekkee environ cinq mille francs nga xam am boo ci bëggee fay quarante mille nit bëgg cee joxe dépense bëgg a paas liggéeyi bu yàggee bor jiital la de mbokk yi ku bor jiital jaam la yàlla nañu yàlla musal ci bor bu jiital ñu ko su la bor jiitalee rek dootoo gore soxna si it xoolal yàlla war ndax def nga ko ndax sa doom nàmpal nga ko ñaari at yi war walla minimum at ak juróom benn weer yi war ndax xale bi heure nàmpam yaa ngi koy jox wallahi ladi laa ilaha gayru am na ay jigéen yu yonent bi gis ci jahannam laaj ko jibril mu ne ko ñii ñooy jigéen ñi bañoon a nàmpal seen doom ah déggati ngeen dara nag waaw te gis nga loolu nattu la nag nattu la sa doom yaa war a nàmpal est-ce que xam nga sa doom li ci yow àqam la ndax yàlla moom moo la ko jox jaaral dundam ci yow ci yow la ko formé min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saaiga diggante deret ak ndox ak sébrit la yàlla boole génn ci soow mu ñëw ci sa ween te ween bi boo daggoon lañ ca deretay génn bu xale bi mëccee meeway génn loolu xikmatu ilaahi la ndax war nga koo xañ xale bi nga ni doo ko nàmpal da ngay bañ sa ween daanu balaa ñetti weer nga biir nag nef ya fi jeex yàlla teg la nattu nef nag parce que xale bi sa deret ni mu war a génnee nga di ko indisposé noonu la war a naanee meewam su ko nampoo normalement namp bi jaadu at ak juróom benn weer jëm kaw namp bu normal mu jël li mu war a jël lépp incha allah doo def léegi nag xoolal yow it sa jëkkër wax nañ ko ne yow ndax yaa ngi jox sa jëkkër àqam ndax yaa ngi sàmm sa bopp ci moom ndax yaa ngi bàyyi la mu lay tere ndax yaa ngi def li mu lay digal bu yi amul rek jafe-jafe am moo tax jàngal environnement bi la wër la la war ndax def nga ko su fekkee la la war def nga ko toogal xaar alaa inna nasrallahi qarib léegi ndimbalu yàlla ñëw kon defal la la war doog a laaj sa wareef borom bi nee na dama leen teg ay nattu ngir ñu xalaat kon xalaat leen ci nattu yii ci réew mi ci adduna bi foo tourné nit ñaa ngi rayante léegi yéen a ngi dégg ay centre Afrique ay bangeeg fu nekk ña ngay rayante rek loolu nag ñu war cee tiit ñun war a jaamu yàlla jéggalu yàlla ñun ñu foog ni yàlla bi tiim adduna bi tiimuñu ñun ñun moom dañoo jàpp ni ñu baax ñi fi tëdd ñoo tee bal tàkk fi seytaane bu la naree indil fitna dalay wor dalay war ci sa borom ba dootoo gis li la borom bi defal ngay gis li morom def jàpp ni morom mooy borom bu borom bi ñëwee yàgg morom mu toroxal leen moo tax la jaadu dellool mbir yi yàlla subhanahu wa taala borom bi ne fa ida jaathum su leen dikkalee alxasanatu taar-taar bànneex lekk naan wér yaram su ñëwee rek ñu ne lanaa haadihi non lii suñu liggéeyu ndey la boo amee jàmm am doole am kattan fiix wér non sama liggéeyu ndey la sama ndey ko liggéey ko doo delloo yàlla mbir yi de doo ni alhamdulillah de mais da nga naan sama ndey ko liggéey même boo amee jabar ju rafet ndax ne sama ndey ko liggéey moom daal foog nga ni boo amee welo sama ndey ko liggéey fekk mbir mi jaamu borom bee tax sa mbir sotti. su lu baax amee ñu génn ca yàlla ñu nit daf ñuy dal ñun suñu amee du ñu sant yàlla am sant yàlla mooy la nga am nga jox ca yàlla moomeelam mooy am sant yàlla <coughs> bu dee da yore ay kër di ko luyee mbaa yaa ngi leen di génneel azaka yaa ngi liggéey mbaa yaa ngi def la la yàlla sant ki ñàkk ñëw ñaan la te nga am mbaa jox nga ko yii mooy delloo yàlla njukkal borom bi ne wa in tusibhum su leen yi sayyi'atun métit jafe-jafe ñàkk yattayaru ñu gaafal kan la ñuy gaafal bi Muusa moom kay ba mu fi duggee ba léegi dara doxul kii mooy gaafu kër gi kii mooy tuuru kër gi ba mu tàmbalee tubéy muy gàtt yi ba léegi dara doxul ci kër gi <laughs> suñu benn mu nekk abaadu ba léegi fii dara doxatu fu quoi ma ne ko kon de waru woon a nekk abaadu abaadu de moom doxut waaw gis nga ndeysaan xamul ni yàlla dalay nattu ngir toroxal yàlla ñi a toroxal du leen nattu moo tax nit boo toogee di mooy yàlla yàlla dina xéewalal tiital ida raayta allaha yuti abdahu ala maafihi fa alam annahu istidraj loo bëgg am oto yi bëri dem ba nga jënd say yo milliards yi bëri nga commencé non diw gi vraiment xoola aralam bu bëri bi nangam nangam nangam ngay xool suñu xale yu góor yi gën a tànn dañu nekk fee oh, xoola Cristiano liñ koy fay et tout liñ koy fay yaa xii demal ci jàkka ñu fay la moo gën moom stade la am yow jàkk nga mujj gi yaa ko moom wallahi wal aaqibatu lil muttaqin bul fàtte sa bopp bul seytaan da lay fàtteloo sa bopp gis nga góor fexeel ba nekk jàmbaar bul tàgg jàmbaar kun antal batal waaye hada amalu abi hada amalu ummi hada amalu shaykhi hada amalu jaddi maada faalta anta sama baay def nangam sama yaay def yow loo def yow da nga war a fexe nga def nit dafa war a fexe def lu tax ñu di ko tàgg mais bu bàkkoo ma na jàmb ci sëñ bi sëñ bi ngàdd mooy waat yow doo bi sëñ bi daa jàng rek mbir mi ci téere yi dong la nekk defee bis boo jàngee mel ni moom da nga ko raw waaye yii kii li moom ko yii mu nga Sénégal bu ne yii rek mooy pare na moom moom foog na ne yii moom yaa non wuu yii loolu koy gaan ah xam nga loolu dañ nax naxa nax ba kenn tuñul jéemoo def effort jéemoo def effort pour jàng jéemoo def effort pour xiyaamu lay ki ñu lay tàggal ne la dafa mënoon a jaamu yàlla ba yàlla di ko may da nga foog guddi yëpp da koy xaram déedéet mayu yàlla foo fekk borom du ko tal wallahi ñi ñuy tagg ñu baax ñëpp taguñu ko woon ay laaxu daqaar lañ doon lekkat ay laaxu bisaaba di góor góorlu nag ci alquran waxtu wu ne man sama benn sëriñ daara alhamdulilah sëriñ daara yal wallaahi xaw ko ci ñi gën a baax ci ñi ma jànge ku ko gën a baax ci ñi ma jànge kooku def na ci man lu baree bare musuñu ko gis guddi jot lu dul mu naafila ñaari hizib wallahi chaque guddi ñaari hizib lay naafila foo tollu dégg baat bi neex te rëy baat bu neex te rëy ponkalu nit la woon dam dam danga ko doon xool ba ci yàgg ñu naan kii du nit kii kii day xaru rek xoolal ma loolu nekk yow mi ngi liggéey ci kontam ëllëg loo xam ne bu demee dana ko jot bu ñu la waxee ku baax yéemul ci mbaaxam waaye fexeel def li mu def parce que fañ ko doon joxee jeexu fa ku koy joxe du yàlla yéemu fa fexeel ginnaaw si la del su jóob la waa di am jàmbaar la ba mën liggéey jàmbaar la ba mën am bis boo defee ne moom nga mel ni mais sam papa borom xam-xam la woon yow loo def fexeel nga doon borom xam-xam nga jàng nga mën loolu moo ñu nax ci suñu këri diine yii nga xam ne mag ña ko sosoon te jàngoon ñi ñu fi bàyyi malheureusement jànguñu daal wala boog ñu ci ëpp jànguñu kon fexeel kun antal batal fexeel ba nga nekk yow jàmbaar mi bi ñuy tàgg waaye ñaari baat yi ne <laughs> wallaahi sama papa kay sama papa meloon yow tee ngaa fexe ñu tàgg la tee nga fexe ñu ne yow yaay waaja jullit noonu lay mel et puis loolu lépp nag teg ko ci sopp jullit yépp teg ko ci yëpp jullit ñépp teg ko ci borom aajo boo xam taxaw ca mbokk yi yonent bi dox benn xadis bu daw yaram nee na wallaahi ma xëy ci soxlay sama moroom ba mu faju moo ma gënal ma li itikaaf ci sama masjid bi fanweeri fan sama moroom am jafe-jafe munuma ko koo fajal may dox di ko jàppale ba mu faju moo ma gënal ma itikaaf ci sama masjid bii weer kon intilaqan min hada nga yëg ni sa jafe-jafe morom da nga war a taxaw lu tolloog li ngay taxaw ci sa jafe-jafe morom yàlla loola la lay defal saa boo nee nit yàlla na dem àjjana ay malaaka yëpp ne la ak yewit nit yàlla na wér malaaka ne la ak yewit kii jafe-jafe bi yàlla ko yàlla teggi ñu ne la ak yow sa bopp mën na bañ a nangu mais bu malaaka yi day nangu moo tax yéeneel sa bopp jullit ñi la nga yéenee sa bopp léegi nag ñoom nee nañu ñu gaafal Moussa wa man maahu ak ña ànd ak ñoom borom bi ne Moussa maa lay tontul ala damani innama tairuhum seeni gaaf na la wóor ni inda fa yàlla la bàyyi koo yàllaa leen nattu de bu ñu yemee rek nañ ñu yàlla moo gaaf waaye nag yàllaa leen ko takk borom wa taala nee na walakinna waaye li ëpp ci ñoom laa yaalamuun duñu xam wa qaalu wax nañ ñu Moussa ne mahma tatina saa boo ñu dikkee min aayatin ab keemaam rek li tas xaranaa ngir nga jabar ñu la saa ngir jabar ñu rek li tas xaranaa biha fa ma nahnu laka bi muminin ñun duñ la gëm gisuñ ne indi mais njabar la jàpp lay indi te fekk Moussa li muy indi njub la borom bi nee na nag léegi fa naa ma yabal alayhim ca ñoom ak tuufaana mbënn ma mbënn mooy ndox muy taw di taa oto yi du mën a dem nit ñi duñu mën a dem rab yi génn criquet yi génn njéeréer yi génn mbott yi génn doo nelaw bëccëg ngoog ngoog ngoog guddi picc yi wel wel wel wel mattkat yi matt yooyi naaw bu loolu amee tiit leen ci yàlla mais non non inondation bi il faut ñu tabax plan jaxaay affaire bi changé nangam nangam nangam déedéet mbir mi mooy dellu ci borom jaxaay borom bi na loolu yamut fa wal jaraada ma yónnee leen ay njéeréer waa ji nag nee na njéeréer daanu roog séeréer man nga yaa ngi tooñ de <laughs> aljaraad mooy njéeréer njéeréer li tax mu doy waar lu mu lekk mu génn dafa am ñaari rab yu doy waar benn bi léebéer lañ koy wax muy mbaam àll mbaam àll moom la ñuy wax xinziirul barri moo dàq lekk mais lu mu lekk da koy génne moo tax du suur njéeréer it noonu la mel lu mu lekk da koy génne day bàyyi ba tool bi ñor ñu rangaloo ànd lekk dugub yëpp yàlla dem feneen noonu la ñuy def gis nga at mi fi njéeréer yi ñëwee waxuma la tax yàq tool yi mais ay accident la ñu créé ay accident la ñu créé da ngay xool ci route nationale bi oto day daw njéeréer yëpp ne kër kër ci kanam borom dootu gis ni képp daal mbaa mu mbëkk moromam yemul foofu njéeréer di dee ci tëli bi tëli bi mel ni laalo boo deful ndànk sa oto rek nga dérapé dem waaw kon loolu ñépp na commencé jóg état bi nag sëñ bi ñaanal yaa ñaanoon mu deñ bam fi amee sa maama ñaanoon xanaa fi ngeen ko teg wóorul de sa maama ñaanoon bam fi amee mu deñ ñaanoon ndax nuru na maamam mu commencé xub gërëg nag <laughs> ngay dinaa ñaan ñaan affaire yi continuer xanaa yaakaaruma ni du piir bi de bii royal la bu doon piir bi kay du ne mukk du gis boppam kon mbir mi bu amee ñun ñépp dañuy tuub dellu ci yàlla yemu fa borom bi nee na wal qummala ma yóbbante leen ay téeñ wa dafaadia ak i mbott wa dama ak deret yii yépp dama ko def aayaatin ay keemaan mufassalaatin yu tàqalikoo waaye nag ndax tax nañu jug déedéet fastakbaru ñu réeréeru wa kaanu ñu nekk qawman aw ni ñoo xam ni mujrimiina saay-saay lañ yàlla nañu yàlla musal ci génn topp moo ñu dal nag léegi wa kaanu qawman mujrimiin sunu xale yu góor yi mujrimuuna lañ jigéen ñi mujrimaat lañ waaw waxuma nag ñëpp règle dana am exception waaye dëkk boo xam ne tëgg fecc caaxaan naa loo rek loo rek loo xale yu góor yi ñoom fa koo ci na jaamu yàlla mën a non damay dox sama ndaw tuuti jigéen ñi boo ñuy waxee ni sa defe am jot nañu ko bëggee lañu koy def te ndeysaan ku ci jaaxle rek daw ku ci jaaxle daw nañu moytu mooy borom bi borom bi dafa ñaawlu jaamam di ko moy ndax li mu la defal yow jaam bi lépp waroon ngaa góorgóorlu ba bañ koo moy borom bi nee na njabootu firawna walamma waqaa ba mu tàbbee aleen ci ñoom ak rijza mbugal ñu ñàkk jom xaaloo ña nga naan lana rabbak ñaanal ñu sa bi ma ahida indaka la mu la digoon comme nañ saa boo ñaanee yàlla may kon Moussa ñaanaatal la in kashafta soo ñaanee ba wuññi an naa ci rijza mbugal mii ñaawteef mii na la leer ne yow Moussa la nu'minanna laka dinañ la gëm te kat yow Moussa danañu xam ni yow mii yaay waaja wala nursilanna danañu yabal danañu bàyyi boole ma ak yow banu Israa'iila banu Israa'iil nga libéré leen borom bi ne fa falamma kashafna ba ñu wuññee anhum wulif leen ar rijza mbugal ma. ilaa ajalin mu jëm dig boo xam ne kat hum ñoom baaliguuhu way joti lañ ca yàlla nee na xam naa ni du ñu changé waaye nag dinaa leen may mu may leen benn temps teggi loola xool ndax danañ ñëw yàlla dara liiru ko mu dem ba ci yàgg gaa yi fàttewaat dansin ya ubbi foomook ubbi noos ma jolli borom bi nee na idaahum ndeke ñoom ca mbetteel yankusuuna ña ngay jett loos ndax foogoon na ni rëcc nañ waaye kenn mënu maa raw borom bi ne fantaqam na ñu fayyu minhum ca ñoom fayyu ga mooy lan fa agraq naa ñu labal leen fa agraq naahum ñu yab labal leen fil yammi ci lëgg ma bi annahum la tax ñoom kadabu weddi nañ bi aayaatinaa suñu aaya wa kaanu nekkoon nañ xaafiliin di sàggan anha wulif aaya yi ñu nit sàggan nañ wulif aaya nga fekk jullit bu xëy di jàng alquran yombatu guddi muy jàng alquran yombatu alquran nekk sa xarit yombatu jullit dangaa war bis bu nekk nga jàng as lëf ci alquran jaamoo ko sa borom jege ko sa borom moo gën di jàngulu kaamil jàng kaamil moom ñàkk teggin dong la kaamil boo xam ne ñii fii lañu tàmbalee ñii fee ñii fële yuuxoo rek dem loolu foyee alquran la yonent bi doon na wax ni jàng leen alquran balaa ay nit a ñëw ñoo xam ni quran du romb seen boli neexaay bi rek lañ ca am bu la ca des amul ci sax gaamu yàlla ñoom dañoo foog ni quran dañ koy jàng yuuxu rek mais duñ ko jëfee tey ñaata boroom xam-xam yu dul jëfee ngeen gis yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal boo jàngee téere bii ñaanal yàlla mu may la njub ndax boo jubul da ngay lor sa bopp donc moo tax borom bi nee na dañoo wanoon ginnaaw sama aaya yi léegi nag wa awras naa ñu donnuloo alqawma alladina nit ña nga xam ne kaanoo nekkoon nañu nañ yustadafuuna dee fi néewal leen doole muy banu Israil firawna da leen doon néewal doon ci dëkk ya mashaariq al ard fa suuf sa di fenkee ba maanaam da ngay dem sow ba mu jeex wa maxaaribaha ak penku ba mu jeex lépp ñu fitnaal leen fu ñu leen fitnaalee Égypte teg leen ay nattu teg leen ay fitna teg leen toroxloo moo tax mu ne wa maxaaribaha ak fa muy sawee allati ba nga xam ne baarak naa barke nañ fiiha maanaam la tàmbalee Égypte ba Jérusalem ba baytil maqdis noonee lanu ko def waaye nag yow Muhammad ginnaaw lii bu mu weesew maa ngi lay wax ni wa tammat dëgg dëgg dëgg mat na waay waay lan moo mat kalimaatu rabbika ay baati sa borom yàlla ni mu bëgg àdduna doxee ak ni mu ko bëggee tëraloon na ko ba pare fii kitaabin maknuun def na ko ci téere boo xamante ne laa yamassuhu illa al mutaharun yàlla réglé na àdduna ba mu jeex nekku fi na naan suba lii dana am ginnaaw suba lee dana am mais benn plan programme lu tëral ba mu ko tëralee ci ba mu bindagul aadama la ba kiy mujj ci nit ñi la lanu war a am fa ñu war a jaar la nar a def lay ñëw lépp borom bi tëral na ko subhanahu wa yàlla nañu yàlla may pas-pas boobu léegi nag mu ne sabaati borom mat na alxusna ya rafet ca kan ala bani israila bi ma sabaru ngir sababu lu ñu mënoon borom bi nee na wa dammar naa nag ñu daal di dammate dajji teggi ma kaana la nekkoon na ko yasnau di def firawn yàlla na ma daaneel firawn ak la mu dum jëf lépp daaneel palais daaneel lépp lañu ñu tabaxoon foog ni ñoom dong la borom bi nee na daaneel naa lépp lépp lépp wa qawmahu ak nitam wa maa kaanoo ak lañu ñu nekkoon yaarichuuna di lal ko bâtiment ya ñu waajoon ak lañu ñu waajaloon lépp borom bi nee na jëlee naa ko fa munuñ ca kon jaam bis bu ñu delloo ci li ñu yàlla sant njëriñ rek la ñuy am bis bu ñu jàngatee suñu diine jàmm rek la am tey suñu fitna yëpp ñàkk xam diine moo yóbbee seytaane mën ñu ñàkk xam diine moo tax ñu nax ñu di ñu tong-tongee di ñu foyee mbokk yi képp kuy jullit gëm yàlla war ngaa bàyyi xel yii di ñëw dafa am ay mbir yoo xam ni moom jullit bi da ko war xam muy maa huwa maalumun min ad diini bi darura loolu mënta ñàkk ay mbir a ngi nii jullit bi fas yéene ko fas ci sa xol étudier ko bu baax a baax nga doog a am personnalité su manqué rek ñu moom la su manqué keneen jëriñoo la maa huwa maalumun bi diin maa huwa maalumun min addiini bi darura am na loo xam ni aajul laajul jàng laajul xam mais yow ci sa bopp da ngaa war a gëstu ngir xam ko mbokk yi jullit daa war a góorgóorlu ba xam ni moom daa gëm boromam bu ci dara sikkee lu borom bi wax alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna xayb mooy gëm loo gisut kon yàlla dañu koy gëm gisuñu ko waaye xam nañ ñi am na parce que li mu def moom rek moo ko def bi àdduna sosoo ba léegi kenn déclaré gul ni moo moom suuf États-Unis waxagul ni am na ci asamaan ni benn code part Chine waxu ko Japon waxu ko kon war na ñoo xam ne am na ko ko fi def waay kon loolu mënta ñàkk jullit bi war na koo xam xam nga xay bo léegi lu yomb firi la léegi-léegi nit nga bañ a gis dara te mu am wala loolu amul ma joxe exemple ñun ñëpp bu ñu xoolee asamaan dina gis ay image ku xool rek ci jaww ji di gis ay image xam tax sa bët moo ko mënta gis tegal tele léegi wala téléphone léegi booy taal rek mu xëccal la image bi am wala déet pourtant image yaa ngi ci kaw de mais yow mënoo koo gis parce que capacité bi nga war a am ba gis ko àgguloo fa àgguloo fa léegi nag nga toog léegi. ñu taal télé bi léegi mu jëlee ci satellite bi wala ci jaww ji ay jëm yooyu gis ñuy dox mu leer na ni lu am la wan la président mu leer na ni président la mu wan la ni tey da doon def xaw ma lan ak lan nga mu leer na ni lii dëgg la waaye gisoo ko woon fuñ ko denc ci jaww ji waaw suñu àdduna jàngalee lii ñu mën koo gis borom bi nag gënta yey moom moo gën a yey mbokk yi diine pour nga nekk jullit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jullit bu bokk dëgg dëgg dëgg il faut nga am alfahmu bi diin dégg yal nañ ko yàlla may dégg ajuwul ci jàng de mën nga jàng dégg mën ngaa jàng doo dégg bëri na ci li ñi ñoo xam ne jàng nañ dégguñu mais am nañu jàngul dégg lool dégg yàllaa koy maye yàlla nañ ko yàlla may alfahmu saxiix mën ngaa mokkal alquran mën ngaa mokkal sunna mën ngaa mën lépp lépp lépp mbir yi tënkal sa baaraam ñeent laa la ciy tënkal ñeenti mbir laa lay tënkal fexeel ba intilaqan min al yawm ginnaaw tey sa diine bu la si kenn naxti li jiitu ci règle yoo war a jàpp yow nit da nga war a xam ne ak diinu kaamil loolu moom kenn waru ko werante diina ji mat na sëkk mat na diina ji mat na yàllaa ko wax kan la ko wax yonentam jàngu leen ci alxuraan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama borom bi subhanahu wa taala mu ne al yawma tey yow muhammad akmaltu lakum matalal naa leen waxul ne ko at at maam ak maltu laka ak maltu lakum lakum jooja borom bi waxoon nag saxaaba ya taxawoon ba koy mujj judd ci ummatu muhammad ci lakum bi la bokk saxaaba ya taxawoon ba aay ci ci lakum bi borom bi ne diinakum li ngeen may toppee matal naa ko wa atmamtu alaykum nicmati samay xéewal matal naa ko li ngeen may jaamoo nag benn laa ci bëgg benn wa raditu lakum al islaama lu ngeen ma jaamoo bëgg ma nangu ko ma bindal leen ci tuyaaba bëgg ma nangu ko ngeen juum ma bindal leen leneen kooku amu leen beneen bunt bu ngeen koy amee lu dul ci islaam foo mën ci dëkk barakallahu fikum borom bi nee na raditu lakumul islaama diina islaam dong laa gërëm islaam dong laa gërëm su ngeen ma ci jaamoo ma nangu fu ngeen ma jaamoo feneen fu dul islaam jaru ko du sotti mbokk yi aaya bii bi muy wàcc wàccin bu doy waar la wàcc juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo ko escorté juróom-ñaar fukki junni malaaka soixante-dix mille malaaka ñoo escorté al yawma akmaltu lakum diinakum muy article boo xamante ni du changer jamais njëriñ bi malaaka yi xam borom bi yebal leen fan la wàcc màkka ci kan la wàcc ci muhammad sallallahu alayhi wa bi dund na madina fukki at yu teg xëy ne Bilal yëgleel Bilal ne ko lan ci weeru safar damay dem aji waxal sama saxaaba yi ku bëgg a dem na pare yonent musul ak ñu dul aj boobu képp koo xam ni bëgg ngaa ànd ak man aj màkka wax ko mu pare Bilal yéene yonent bi nee na ku bëgg a aji waajal day aji saxaaba yi ne kenn duma ko nettali lafa yi jóg silmaxa yi jóg góor ñi jóg jigéen ñi jóg ndaw ñi jóg ñii commencé yafal seeni fas ñii commencé denc seeni tàndarma ñii commencé lijjanti ndox kenn ku nekk naan dooma ko nettali aju gu yonent bi dama koy fekke mbokk yi saxaaba yi demoon nekkoon nañ cent vingt quatre mille sept cent trente saxaaba cent vingt quatre mille sept cent trente saxaaba ñoo ànd ak yonent bi sallallahu wallahi wa kaana xajjan ma mithluhu min xajj sahaaba yëpp waaj yonent bi ànd ak ñoom bi mu ànd ak ñoom ñu dugg Makka def seeni mashaa'ir yëpp rey seeni hadaaya yonent bi na sahaaba Arafat nañ leen fa daje sahaaba yi ñëpp ñëw taxaw yonent bi jàngale dimension islam yi gën a mat joxe ko keroog nu ñuy yoree kër nu ñuy yërëmantee nu ñuy jàppalantee ku jiite na nga yërëm képp ko donte ñaari nit nga waxa waxa wax sahaaba yi ni tekk kenn du yëngatu picc naawul ngelaw jógut xeer jógut dara doxut melentaan yi sax dañoo noppi cel kan la ñuy déglu sayidul xalq sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi ñépp taraxlaayu làmbaayu ñépp tarax laayu làmbaay kenn sol lu yére ñépp jàkkaarloog yonente bi kenn du ne sa morom noppil mbooloo mu toll noonu islam rek moo leen mën a diriger ñu ne tekk xale sax bu dee wax kenn du natal ndax saxaaba yi bugguñu dara romb leen ka anna fi ruusihim tayr yonente bi wax a wax a wax ba ci yàgg ñu seen ko mu sëgg bi mu sëggee rek ñu xam ne am na luy ñëw ndeke yoo juróom-ñaar fukki malaaka yi escorté nañ al yawma akmaltu lakum diinakum indil ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko indale moo tax Umar ibnu Xattaab nee na al yawma akmaltu lakum diinakum fekke naa ba muy wàcc xam naa na mu wàccee ci ban at la wàcc ci ban bis la wàcc ci ban waxtu la wàcc fekke naa ko mooy maa ngi arafaat ci ban bërëb la ci arafaat ban bis la ajjuma ban waxtu la tàkkusaan la al yawma akmaltu lakum diinakum wàcc mbokk yi bi mu wàccee laa ilaha illa allah sahaaba ñi amoon dégg-dégg ci sahaaba bi ñu waxee aaya bi tas ko aw abu ayub al moo ko siiwal moo siiwal aaya bi waaw moo ko njëkk jàng siiwal bi mu ko jàngee jullit ñi seeni rangooñ di tuuru ci seeni lambay góor ñi seen sikkim tooy xet jigéen ñi ñu ngay jooy di fomp kan mooy wax ak ñoom koo xam ni waxam laajut rajo laajut micro laajut dara lan moo tax balligh ma unzila ilayka min rabbik yàlla ko ni jottalil kon mooy yu tax ñu jot ko dana am mbokk yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma fashhad la ma waroon a wax wax naa ko de xoolal registre bi bu dara manqué mu continuer sa mission sahaaba yi ne ko ballagta risala matal nga wa addaytal amaana kóllëre gi mat na laa waroon lépp lépp lépp def nga ko aboubacar mi ngi sëgg umar mi ngi sëgg ousmane sëgg fee saad ibn abi waqas ma ngay jooy kibaaru saxaaba ñoom dégg nañ aaya bi mais ndaw ñi ñoo xamut luy wundu ndax ñoom xam nañ ni aaya bi daa ñëw di tàgge muhammad sallallahu mbokk yi bu ñu la joxee mission nga ne ci mission bi di liggéey di liggéey di liggéey bañ ne suba ngay pare ku ànd ak yow war naa waaj ku ànd ak yow war naa waaj saxaaba yi yëg ndeke aaya bi day tàggee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar yëngal bopp bi noppi Umar yëngal bopp bi noppi mbokk yi al amru tamma mbir mi mat na sëkk sëkk sëkk mbokk yi moo tax yëgal ni diina ji mat na luñ ci indiwaat bokkul bi daa lay tudd lépp loo xam ni saxaaba yi jaamoo wuñ ko yàlla ku ko jaamoo yàlla yàlla bañ lépp lu sahaaba yi deful ut ci yàlla boo ko defee doo ci am yàlla la tax sahaaba yi dem àjjana ñoom ñépp waaye amatoo lu ko gën munoo am lu ko gën kon al yawma akmaltu lakum diinakum diina ji mat na sëkk yonente bi ne sahaaba yi ma min shay'in yuqarribukum ila al janna wa yubaidukum an in naar illa wa qad xaddaftukum bi amul lenn amul fenn amul nenn donte donte pepp atom la lu leen di yóbbu àjjana lu dul wax naa amul benn occasion bu leen di yóbbu àjjana illa waqad xaddastukum bi amul lenn lu leen di jegeeloo safara illa waqad xaddastukum bi lu dul wax naa ko kon mbokk yi mbir mi mat na su amoon lu des kon yonent bi du dee waaye mbokk yi saxaaba yi kontaan moo tax Malick dégg diine xam nga dégg diine wallaahi xam ngeen biddaa lu koy sos bëgg jaamu yàlla te xamoo mooy indi biddaa gars yi ñii def biddaa bonuñu de bonuñu danoo xamut seytaane moo leen contourné da leen a nax dañoo jaaroon siratan mustaqim mu naan leen waaw waaw ba ci àgg contourné leen dëpp leen léegi loolu moo leen jàpp parce que bu ñu jàngoon teg misaan bu mel nii du ñu topp seytaane lii seytaane naxe senegal yu bari boolee nee nit mu ne ah ku toll noonu ah non ku toll noonu moom mënta juum e ab sëriñ bu mag day def tooxi doon ne non non ku toll nii moom mënta juum moom gis nga yii mbokk yi liggéeyu seytaane la da koy def ci bopp yi ba ancré ko ci nga gëm ni sëriñ bi du juum bis ba nga gëmee ni sëriñ bi du juum teg nga ko place yàlla mbokk yi même Muhammad day juum sallallahu alayhi day juum ci li ko yàlla yoon la dul juum fekk na ay saxaaba ñuy góoral tàndarma xam ngeen góoral greffé yonent bi romb leen ñu koy def ba jàmm lii lan la ne ko dañuy góoral tàndarma yi ndax doom yi rëy yonent bi ne yàllaay dogal bu ngeen ko bàyyi noonu tam mën naa rëy gaa yi bàyyi ca déwén sa tool ba mel nam meloon yonent bi jaaraat waaw lan moo xew ñu ne ko ah yonente bi yow waxoon ni yàlla naa ko kii ñu toog seeta yonente bi ne déedéet man mbirum <laughs> sallallahu alayhi wa sallam déedéet seen mbirum diine la ma yàlla jox mais seen mbiru àdduna yéen ma ko gën a xam su ma waxee lu dul noonu nee ma du xool leen kan yonente bi moo wax lii nag sunu gars du ñu juub non non non non non non non ñuy juuma ah waaye Ibli Jibril ñëw na fi démb day dem bi ñam na ndeysaan man dama doon ba jàgg gis nga suñu gaay yi bu leen Jibril planté dinañu am tribunal yu yàgg te gàtt Jibril rek la ñuy fay Jibril ak almura non ku jóg rek def say caaxaan mbokk yi Malick nee na wala yafluxu li hadihi l umma bi ma faluha bihi awaluha wallahi xeet bii baax lu dul la baaxal ñee dem ca ngir baax munuñoo am lu baax lu dul fa saxaaba yi jaaroon ñu mun faa jaar baax mais bu ñu teggee fa saxaaba yi jaaroon du ñu baax kenn amul garabam kan moo ko wax Malik ibnu Anas mbokk yi kon al yawma akmaltu lakum diinakum nga règle bii gars yi balaa ñoo am xew-xew dee leen seet 10 jours ci kanam léegi xam nga 10 jour mi ngi waaj ñëw nga xamante ne léegi xew am juddu yonante bi nangam nangam commencé na c'est que al yawma akmaltu lakum bi muy wàcc nangam nangam nangam nangam xam nga dama toog ba caag ma ni ñii nag ñoo sonn léegi yéen amatu leen problème mooy jéem a layal li ngeen di def ndax wér na coono ñëw na lu wér kenn du ko layal. alxuraan jar naa layal <laughs> déedéet juddu kenn du ko layal waaye coono googu ñuy def mooy fitna al yawma akmaltu lakum diinakum gis nga diina ji mat na lu ñu la indil neel sa waay wax ji jarul damay laaj ndax Muhammad def na ko wala saxaaba yi tontu bi xam nga lan la waaw wala déet boo ko waxee waaye mënoon noo seek yéen da ngeen a mën a gàttal affaire yi nangam nangam nangam nangam man sama discussion ak ñoom du yàgg. man ku ma ci wax dama la naan ñaari baat moo ñuy àtte waaw wala déet ndax yonante bi mës na koo def bu seeka ma ne ko seeka ji ba ko seeka ji bokku ci problème bi waaw wala déet la gàtt na sahaaba yi mës nañ koo def ah sahaaba yi day ridwanullahi alayhim lépp luy gërëm loo Muhammad def nañ ko bu nu xamoon ni màggal guddee juddoom dana leen yóbbu àjjana nañ ko def ndeysaan xam nañ ko dama toog ba jamono noo mais saxaaba yi nag neexul ba gars dañ ñu saxaaba yi ñoo baadoo la quoi saxaaba yi yonente bi ni mu ngandee ñu war a célébrer juddoom ñu koy kii non saxaaba yi xamuñu woon dara pourtant de ndeysaan bu wéroon ñoom ñoo koy def léegi nag nga jël loolu bu ko tuddee diine nga jël leneen bu ko tuddee diine mbokk yi lépp lu àndul ak diine day yàq day lor. day indi fitna mbokk yi sunu réew tey sunu élevage dee na Sénégal amatuñu nag amatuñu bëy laa xar wala ginaar ay mbott rek la ñu dese léegi def na suñ gën a gars yi nañ ko rendi nañ ko rendi parce que seytaane da lay mën ngay def yi fi dof di dem di dem di dem di dem ba mbëkk miir bi mbokk yi suñu réew tey wallahi oh fitna yu metti metti metti lu ñuy dund dañuy dajale suñuy milliards dem Niger walla Mali walla Mauritanie dem jënd fa ay nag est-ce que xam ngeen Sénégal li fi nekk ci ay xew-xewu diine moo ëpp jouru at mi xew-xew diine yi fi am moo ëpp at mi cent la 365 jours wallahi bu du woon a tafsir loo wax nit ñi mer dinaa la limal par benn benn ngay lim ba romb 365 événement ah, dem nañu ba événement yi bëri nañ ba jullit ñu léegi ñooy nangu 31 ak 24 yi léegi dañ ciy bâche di jàng bi ñu jeexalee jël nañ yëfu catholique yi nag far suba ñu jël yëfu ata yi parce que dañuy tànn tànn tànn ba defee defeetuñu daara ci at mi at mi lépp dafa sigle nii lañ ko def kenn ku ne ut sa xew-xew nag président daa war a ñëw nangam nangam cérémonie nangam nangam nangam nga xam ne lii dajale xaalis nit ñi lekk ko dong la nax leen mbokk yi al yawma mantu lakum diinakum kenn munta lay li ngay def te Muhammad xamu ko mu nekk dëgg amul ci diina yàlla ji règle boobu jàpp ko bu changé kenn mënu laa théorie ne di wax di wax ba mu changé lu mu la wax rek ne ko ndax yonent bi def na ko yow xam man sa àll yu gudd bëriwoo ay hadis bëriwoo ay aaya mais nekku sëriñ bi man jànguma non non vraiment jànguma damay laaj rek damay laaj waaw ndax lii yonente mos na koo def dafa gàtt saxaaba yi mos nañ koo def bu la nee benn saxaaba def na ku nee ko nu mu tudd bu yàggee mu jox la tur wudul tur saxaaba bu yàggee mu jox la tur wudul saxaaba waa waa waa ji noonu saxaaba yi bëri nañu am na benn saxaaba man ne ko ne saxaaba bi tudd mu ne en tout daal xam na tur bi daal ma jaxu moo ci kii <laughs> ma jaxu ma ne non c'est que dama ko bi daal loolu la may jox ndax ma ne ko sëñ bi noppalul ma jaxu amul ci saxaaba yi bu yàggee léegi nga ne ma ma ngañ déedéet moom yow nag da xam lépp ma ne ko xaw ma lépp waaye saxaaba yi seeni nombre yàlla def na xam naa xaw ma ñëpp de xaw ma leen ñoom ñëpp waaye néew na koo muy tuddal yow fi nga toll mënoo maa tuddal turu saxaaba bi ma xamul koo rawut mënoo koo wax lu mu xamul foofu laa ko teg yow mënoo ma tuddal benn turu saxaaba bu ma xamul te boo ma tuddal ma wax lu dundam xaw ma xam naa est-ce que du ma jaxu ma ne ko kon dañu teg ci suñu bi ma jaxu tànji ba waaw ñu gaa ngeen baal ma la ci ñaareel bi ak diinu saamil diina ji daa xam nga daa mat ba pare da këpp li kullil azmina ila qiyaami saa jamono bu nekk diina day maaseeg moom ànd ak moom amul benn jamono buy ñëw ñu ne dañ doon xabdu mais léegi nañu yëkkati xabdu bi ba bopp yi <laughs> non déedéet diina gi dafa rafet rafet ba lu ñëw day tolloog moom alquran dafa rafet rafet ba jamono bu nekk da koy àtte xool leen luwaa yi paase dañ koy dindi di changer parce que jamono àndatul ak moom xool leen matériel technologie dañuy jékki xam nga ni jamono bu yàgg ba analogique lañ doon doxal ci wàllu télé yi léegi nee nañu système numérique mooy ñëw loolu mooy àdduna mais gis nga diine ji lépp lu ñëw day ànd ak alquran maa faratna fil kitaabi jamono bu nekk lenn lu ci nekk bu ñëwee day ànd ak alquran mbokk yi li lay wan ni diine ji dafa mat sëkk parce que ku mat moo ko liggéey moo ko joxe mooy borom bi borom bi kenn du werante ci matam mbokk yi ki gën a gàtt xel ki gën a gàtt xel mooy ki ñu taajal lekk wu neex nga bàyyi ko fa di lekki lu naqaree naqar loolu mooy bidaa yàlla nañ ci yàlla musal wallaahi yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi njub li ñu Muhammad indil julli woor farata yi jeexalaguñ ko xaw ma jàkka ji boo génn ji bi di leen nga dangi ñoo xam ne julliwu ñu tisbaar ñu julliwul tàkkusaan ñu julliwul suba ñun farata yi matagul sunna yi moom waxuma ko waaye looy génne leneen di indi looy dolli yow li ñu la jox pareegut matagut xanaa kay balaa ngaa dolli dara boog na farata yi mat sunna yi mat nga ñambaas boog xam nga bu farata yi matoo nag sunna yi sax bu sa xel mën na nangu sax nga créé bii daa ndax non da nga dema dema dem ba léegi yaa ëpp ndaq sa sa deuxième souffle tàkk na ko mën nga romb affaire yi mais yow yow amagoo sa premier souffle julli gi matul ci jàkka yi woor gi matul sunna yi matul jàkka yi benn rak benn benn sàppe ngay am ñaari sàppe imaam yi faatee sa bu leer munuñ koo jàng ñu am problème yooyu ñu yokkal ñu leneen lañu ci diina ji la bokk waaye sëñ bi sëñ bi xel day xalaat xet day xalaat liñ la jox matagul ngay jëli lu ca bokkul moo tax yonente ne taraktu fiikum amrayni lan tadillu ñu ne ko lan la mu ne kitaab allah wa sunnati ñaar yi ma fi bàyyi bu ngeen ko jàppee du ngeen réer mënuñu ko jeexal kitaab allah mënuñu ko jeexal xew-xew boo am nag jàng nañ jaysun ci kaamil 313 kaamil jàng nañ ko nanga léegi rek sénégalais yi dañoo wàcce kaamil wàcce bu mu nelaw kaamil moom léegi day ne moo tax xol yi dafa nelaw lool ci kaamil wàcce rek ma ne gars yi na ngeen changé système bi boog yéegal boog comme wàcce ngeen ba sonn dara doxul ngeen yéegal mais wàcce kaamin nangam nangam ñaanal dëkk bi def nangam def nangam mbokk yi ñaanal baa ngoog de diina ji saamil mooy dafa mat sëkk bàyyi benn ruq coomo li ñu gànaan fii muus du fi ñaane ñeex diina ji muus munu fee naane ñeex lépp borom bi réglé na ko jamono bu nekk mu ànd ak moom jamono bu xew koo amee alxuraan day taxaw ñu ne ko waa lii xew loo ci xam ah benn règle ngi nii de wa ma ataakumu rasul wa ma nahaakum anhu yomb na règle baax ngoog lu ñu la indil bu ci dëppoowul tegal mbokk yi ñetteel bi mooy at tahsin wa tatbih wa tahrim wa tahlil fa hada min xaqi rab rafetlu dara ci diine ji walla ñaawlu dara ci diine ji daganal wala xaraamal nekkul ci loxo nit nekkul sax ci loxo muhammad sallallahu alayhi wa sallam non oh, lii moom rafetlu naa ko lii ñaawlu naa ko lii nangam at tahsin wa taqbih wa tashri wa fa hada min xaqi rab yàlla dong dong dong mooy daganal mu dagan mooy xaraamoon mu xaram la araamoon ci jamono jamonoy Muhammad ba léegi daa xaram ba léegi dafa xaram du ñu toog ba jàgg ñu ne 2013 bii affaire yi changé na quoi mais léegi sàngara dañu xool poobaa dagan na quoi léegi ay flag moo xaram déedéet déedéet du ñu toog ba jàgg ne cigarette daganul woon quoi mais jamono bi ñu toll dagan na déedéet la xaraamoon ba léegi day xaram moo tax ñëw ci wàllu drogue ak sàngara yonent bi benn règle la ci tegoon rek kullu muskilin xam nga jeex na lépp luy mandiloo rek sàngara la tashri sos ba tuddee ko diine kenn amul droit ndax jeexalagoo li ñu la teg li nga yenu wàccegul waroo indi leen suñu gars yi dañuy tashri dañuy tashri wallaay da ngay dégg ñoo xam ne dañ la naan nangam sangam kay def ko sax moo gën tabaski nangam sangam def ko ndax lële sunna Ibrahima la waaye te Ibrahima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi kii ñëwee yonent bi la topp moo tax la mu nangam nangam yemul foofu nag. dem nañoo dema dema dem ba léegi Sénégal ndeysaan zam-zam sax am nañ ko ay zam ay kaabaak ay sànni jamraak ndax foo ma ne gars yi bu ñuy sànni jamra xanaa xeeru raay la ñuy jël bokk dañuy nax nit ñi di leen fooy ñaari fan nga yàq ko dund yoo amul benn lay ci kanamu yàlla boo ci deewee maada taqulu li rabbika gadan maada taqulu li rabbika gadan looy wax sa borom ëllëg nga dem bërëb boo xam ne leer na la doo fa yokkoo ci diine sa diine du la yokk da ngay toog a toog ba jàgg ñu ne la jeex na jeex na point da ngay jékki sax da ngay laaj kon mbokk yi diine ji luñ ciy def yonent bi ñemewul changé xoolal lu ko borom yow qul maa yakunu lii an ubaddilahu min tilqaai nafsi yaay alquran kay yée ñemewuma cee changé dara maa ngi yéen a yem man Muhammad maa ngi yéen ñoo yem sañu ma cee changé dara mbokk yi borom bi ne am lahum shuraka shara'u lahum min ad-diini maa lam ya'dan bihi llah da ngeen am ay bokkaale yu leen digal loo xam ne yàlla diglewu ko waaw léegi moom am sëriñ bi kay nee na nangam fi mu ne dem na ba dem ba li sëriñ bi wax bàyyi nañ li Muhammad wax loolu mooy seytaane mën nañu dëgg-dëgg fi may jeexale ñeenteel bi mooy li takkale diggante jaam bi ak boromam du judd gu du askan du xam-xam du barke li takkale jàmbeeg boroomam mooy taqwallahi wa ibadatu yii moo boole bu amul rek jàmbeeg boroomam seqatuñ daal kon góorgóorlul ba tënk sa digganteeg sa borom ci di ko jaamu waaye ci nan te na ko Muhammad jaamu yowmal qiyaam doo dee muuk saxaaba yi kii malaaka yi ne loo doon jaamoo yàlla nga ni ko Muhammad indee la tooñ nga déedéet déedéet yàlla yaa ni woon nañ yaa ne woon wa in tutiuhu tahtadu yaa ne woon wa ma ala rasuli illa al balaax yow yaa ne woon walakum fi rasuli uswatun xasana yàlla kooku laa toppoon xas nañ ma nag nee nañ ma sama tubay dafa gàtt nee nañ ma damaa ñàkk fayda aw ma problème parce que waxoon nañ ko saxaaba yi maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusul su ko defee yàlla def na demal ajjana jarul avocat jarul kenn doo jëli El Hadj Diouf doo jëli ma soxna kan kenn du la plaider da ngay dem ajjana gis nga mbir mi pour dem àjjana benn règle dong la ni Muhammad defee ngay defee dem boo mooyee ni mu defee nga jàdd amoon ku am darajaam kon bokk yii dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax muy ñeent yi ak diinu kaamil diina ji daa mat soxlaatul leneen ak diinu shaamil dafa dagale soxlaatul leneen daganal xaraamal baaxal jaaral ci diine ci bu muhammad rek nga ko mën a defee ñeenteel bi mooy li la tënk digganteeg sa borom mooy nga jaamu ko soo ko jaamoo def nga la la war soo ko jaamuwul mooy nga sa borom loolu ñeenti règle yi nit ku nekk war nga loo dof dof dof war naa leer ci sa bopp waruñ la foye waruñ la këll këllee waruñ laa nax mbokk yi yowmal qiyaam amul mbokk fa idaa nufixa fi suur fala ansaaba yowma idin wala yatasaaluun yàlla nee na xanaa xamoo boo duggee bàmmeel sant bi jeex na sàll jeex na mbay jeex na bu ñu dekkee lépp jeex na amatul famille amatul askan xam nga famille askan fii la yemoon ni taarafu loolu la woon léegi nag taaraf naa ba pare nag summa mit naa ñu ne wa buis na ñu dekki amaam allah li yujaazina allah ngir yàlla fay ñu kon laa daaya lil ansaab wala qaraaba soxlaatul lu mel noonu moo tax da ngay seen sa papa du mooyu mu séen la xool ndar xaw ma tëngéej bu amee yowmal qiyaam du la faale parce que talut la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man battaa bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu ku sa jëf yéexal yowmal qiyaam sa askan mënu laa jàllale waaye ñun ah ñun de eh, sëñ bi de ku aju ci moom dem àjjana ah àjjana kay eh, dem rek moom kay ñun nangam rek nangam dem rek dem rek ndeysaan yonent bi de moom xamoon na loolu tiit ñëw ci Fatima ne ko yaa Fatima salini min maali ma shiti Fatima lu la neex laaj ma amma aljanna fala ugni anki min allahi shay'a mënaluma la dara dara dara dara dara dara ca kanamu yàlla lii da la waxoon xoola yonent bi ni mu bëggee Fatima yonent bi daa bëggoon Fatima ba ni Fatima du wujje bu leen ko dégg nag ngeen dem bu ko su bëgg wax na ñu ne la doonal doomu yonent bi waaw. ndax jigéen ñi ñaari baat yoo xam ne ñu dóor ko profité bu ngeen baal ma te ma leen di tooñ nag yonent bi dafa bëggoon Fatima ba ni Fatima di wujjee waxu ko ci làmmiñ mais saxaaba yi loolu lañ ci déggee woon xam nga koo taxaw nga ni kii mooy sama daggitu xol ku ko tooñ tooñ la ku ko merloo merloom jigéen bu amee wut wujj rek mën nañ ko tooñ moo tax Ali ibn Abi Talib fukki xelam xalaatul muy takk bëggoon na. mais boo waxee mu ne sama melokaan ci yorante bi ak Fatima du ma takk keneen moo tax bi Fatima gaañoo Aliou am na ñeenti jabar ak i jaam yu kenn xamul nu mu toll Aliou bokkoon na ci góor ñi gënoon a dëgër ñi yàlla mayoon kattan lool lool daanaka ay ay jaamam kenn xamul nu mu toll ku mel noonu nga xam ne yonent bi bu amoon pexe ci yóbbu ko dara doom du ko yóbbu waaye mu ne ko sama alal yaa moom lu la neex jëlal waaye yow ma qiyaam ah foofu nag moom beneen mbir la kon mbokk yi loolu nañ leen ko bàyyi xel bu baax buñ ñu nax buñ ñu nax nañ leen lu teg règle yi ci suñu kanam soo gën a refatte jëlal kaset bi guddi nga toogaan nga lu ko bu baax a baax jàngal ñeenti yi ba mokk toppal sëriñ bi nangam nga ko bàyyi sëriñ bi fu ko yàlla wax nangam fu ko yàlla wax ñaari baat mu ne yow moom soppi nañ la nangam nangam nangam nangam waaye mbokk saxal ci lii lii la saxaaba yi saxoon ba dem àjjana yàlla nañu ci yàlla saxloo insha allah rabbi barakallahu fikum wa baraka aleykum wa jamaakum fi xayri man